dañu dëkk kunun depuis 2012 dëkkuñ fa tok fa ni rek ci yaama neex biñ fay dëkk dañoo am ay délibération yo xamné ñong ko fa am depuis 2012 yo xamné maire moom moo ñu ko signal le préfet d'alors yi fa doon nekk yi fa jaar yëpp sous-préfet yëpp signé ko on n'a jamais eu de problème ci ay problème ko këyit ak yooyu alors à notre grande surprise nous sommes en 2017 plutôt en 2018 Modou Mamoun Samb ak waa nous ñëw nous dañ fa un titre foncier mu jaaxal ne comme titre foncier la nañ dem Nous ne nous vérifier au niveau du domaine bu nous demee di vérifier ñu euh, titre foncier mais plutôt domaine national pour étayer loolu yëpp ñu ne léegi nañ dem wuti benn géomètre boo xam ne c'est un géomètre agréé xamuñu ko ni d'Adam ni d'Ève koo xam ne dina lii mu wax ñu mu defal ñu levé topographique bu site bi génneen ñu nañu ay la yéwén yéen kat fi ngeen dëkk du titre foncier wu jàmbur mais plutôt domaine national la loolu doyul ñu ne ah comme ki ñu koy séqal mi ngi insisté ba léegi te xam nañu il est prêt à tout kenn ci ñun ku tudd Moustapha Kassé ne moom comme déposé woon demande de bail depuis 2000 euh, depuis 2018 2017 la ko mais 2018 lañ ko ko tontu directeur Ibrahima Bari bu domaine ne ko sëñ bi Kassé yow fi nga dëkk gis naa ne kat yaa ngi may laaj demande de bail mais foofu ci domaine national la nekk mieux fi nga nekk nag. terrain bi kenn immatriculé guluñ ko waaw terrain bu ñu immatriculé gul naka la fa nit mën a amee titre foncier loolu jaaxal na ñépp terrain bu ñu immatriculé gul moom moo ko ko tontu de te lii ay service compétent wu état ñoo ko defar wax ko ne ko fi nga dëkk domaine national la sauf ko nag kenn immatriculé ko waaye dinaa yónni suma ay élément ñu ñëw immatriculer terrain yi pour nga mun a accéder ci sa ci sa baay bi ñu toog vous insister insister yónnee ñu ay sommation ah pare wuñ ci mu yóbbu ñu tribunal waaye yóbbu ñu benn tribunal suñu tribunal des référés boo xam ne bëgg na foofu bu ñu fa demee moom bu indee kayitam bii titre foncier la titre foncier boo xam ne amul sa superficie titre foncier boo xam ne non seulement amul superficie mais lim ñuy réclamer sax ñun occupé wuñ ko te nee terrain bi mi ngi nekk Rufisque te ñun ñoo ngi dëkk biir Kounoune ay la yi wax xëyti terrain bu nekk Rufisque te ñun ñu ngi dëkk biir Kounoune xanaa titre foncier dinañ la am nga fonce foncier mi ngi biir Kounoune mais loolu amu ci lu doy waar a ngi nii nag ci à vérifier léegi nag mun na def na ay pexem nee nañu nag fu ngeen mënti yaakaar ngeen dem fa mais du ngeen ma gaje ci tribunal alors loolu nag soo ko waxee nit da koy tiital yemu fa mu indil ñu ay ordonnance ne ñu légui man gagné na suma procès da ngay di dégager damay toj kër yi loolu la ñuy wax nak 150 familles ñoo fa nekk ay nit ñu jënd seen ay kër ñeen ñu dëkk nañ fa ñi paré guñ ñi ñu ngi fay ñu ngi fay continuer di liggéey su fekkante ne noonu rek la mën a demee dina yóbbaale au moins 1000 personnes yoo xam ne dinañ leen suul si ab kàmb mieux lépp lu ñu def tribunal parce que dafa ñu ko wax def nañu maa leen mën maa leen ëpp doole dem leen fu leen neex lépp lu ngeen def tribunal du ngeen ci am gain de cause la preuve bu ñu commencé bëgg ne ko ah sëñ bi comme yow nee nga da ngay def ne ñu dugal benn requête pour bu mun a invalider lu mu bëgg a def ñu dem tribunal nañu no du ngeen ko du ngeen ko du ma leen ko nangul waaw léegi yow dooñu ko nangul ci lan da nga naan ma du ma ko nangul parce que fii laa ko teg léegi nag ñun on averti tout le monde ñëpp lañ koy yëgal du ñu sonn pendant vingt ans ñi quinze ans ñi dix ans ñi trente ans lu ñu mën def nañ ko dajale te pareeguñ li ñuy def nga ñëw ne dama koy maasale dem teg tu vas nous passer sur le corps kooku moom bu yóbbu nga xam ko suñu ay bakkan ngay yóbbu mais doo ko yóbbu parce que duñ ko nangu. dinañ ci nag woo ki nga xam quand il y a ces genres de problèmes là nit ñi moom la ñuy yaakaar moom xam parce que muy le président de la république essayez arrêter leen ces gars là parce que ñii li ñuy def dafa ëpp du ñun rek vous allez voir di ngeen gis ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te lim ma jaral la jaral keneen ak keneen ak keneen cent cinquante personnes yo xam ne kër gi ku ci nekk am na fa minimum juróom ba fukki nit soo leen bëggee jël ne diñ leen génnee foofu noonu rajaxe seen kër yi wallahi lazim daa yóbbaale ay bakkan